camarade xam naa ne situation bi metti na wax nañ leen ko waxoon nañ leen dina metti mais dinañ am ndam bu soobee yàlla ah je voudrais commencer par dire aux camarades que li Umar wax ci plateforme bi des na yeneen des na yeneen wax nañ leen la surcharge de travail des caissières la surcharge de travail des réceptionnistes la surcharge de travail des releveurs je pense que les releveurs on va même exiger et aller au tribunal du travail pour que ñu respecte le nombre de police des releveurs je pense que comme la direction nous déclare la guerre tous les points vont être sur la table le combat ne fait direction générale bi ñu amal affaire ay dof lañ comme nag ñoom duñu ay nit ñu won leen suñu réew mi ay nit lañ fi soxla soxla wuñu ay bàyyi ma ñu jàpp ne li ñuy wax naan dañu perte deux mille vingt perte deux mille vingt deux wala perte mille vingt et loolu du dëgg du yoon parce que suñu représentant siégé wul au conseil d' administration chiffres yi ñuy joxe mënuñu ko accepter aucune certification nous montre que chiffres yi ñuy joxe dëgg la donc mënuñu ko accepter beneen bi dinaa leen ci jox benn rek. en exemple dinaa leen ci jox benn rek en exemple bi ñuy ñëw au Sénégal gàddu seen ay matériel yoo xam ne kenn xamul fuñ ko jëlee matériel yoo xam ne Sénégal mun ko ci mënuñu ko monter dans notre réseau tey le stock qu'ils évaluent aujourd'hui qu'on ne peut pas utiliser dépassé na peut-être sept milliards loolu ban njëriñ la am bu ñuy wax perte nañ sept sept milliards ou huit milliards ou milliards lan moo ko andi donc sept milliards de stock inutile boobu fan la bokk donc loolu duñ ko nangu ce matériel la l'état du Sénégal est interpellé nañ ko génnee sur les charges de l'entreprise parce que loolu buñ ko ci génnee entreprise bi mën na positive je le répète matériel bi yéen ñëpp gis ngeen ko les ouvriers qui sont dans l'exploitation biñ ko fi andee amaluñu njëriñ andi nañ fi ay camion di wax naan ay camion pour joxe ndox la gis ngeen camion yi yéen dara baaxu ci matériel d'occasion boobu fan la jóge kenn xamul donc loolu bu fekkee ne moo nekk ci seen ay charge nañ ko dindi l'entreprise va être positive ah donc point boobu laa doon yokk ci li camarades yi wax di wax ne ñu ngi masaw camarades par rapport aux coupures de salaire waa mais dinañ leen masawu dinañ leen masawu waaw c'est la dignité mais dinañ leen masawu parce que metti na Sénégal fi mu toll ñu dagg près de cent de ton salaire nous développerons la solidarité Nous développerons la solidarité pour permettre aux travailleurs quand même ñu am une ligne de crédit qui permette au moins de soulager certains qui sont dans des difficultés loolu dinañ ko développé ci jour yi ñu jëm incha allah et lépp lu ci war dinañ leen ko wax Ah, Ibrahima wax na ko léegi la note de la direction générale pour nous intimider pour intimider les travailleurs là ça ne peut pas passer une direction irresponsable qui coupe près de 70 pour cent du salaire de ses agents nan nga mën dellu seet ne da nga leen di defal ay avance da nga leen di jàppale c'est pas vrai c'est pas vrai donc loolu laa leen di wax ne ñun dinañ organiser suñu solidarité parce que suñu combat bi comme niñ ko waxee c'est un combat pour redresser la rétablir la dignité des travailleurs rétablir la dignité des Sénégalais par rapport à cette exploitation de Suez ah waxoon nañ ko waxoon nañ ko avec la société civile moment boobu les gens pensaient que ñun dañu amoon penchant alors que ñun xamoon nañ ne fii la ñu jëm xamoon nañ ne dinañu delloowaat 96 malheureusement amuñu chance bi ñu ñëwoon 96 am parce que 2021 2022 nag nekkul 96 nekkul 98 nekkul 98 les travailleurs ont évolué dans les leurs engagements liggéeykat yi évolué nañ seen i bëgg-bëgg évolué nañ seen jàng soxlawuñ kenn soxlawuñ benn tubaab pour diriger l'entreprise je le répète SDE avant muy dem dem na ba amatul tubaab set tubaab yi ñu fi andi li ñuy coûté buñ ko defoon ci sénégalais yi kon ba ni dépassé nañ fi ñu toll. waxuma nag missionnaire yi nga xam ne dañuy ñëw ñu leen di fay un million par jour. ñu taxawaalu pendant une semaine deux semaines dem seen yoon donc si l'entreprise est en faillite si l'entreprise est déficitaire nañu xool foofu ci tubaab yi nañ xool seen charge nañ xool seen maquillage pour nu ramener une société telle que nous le voulons telle que nous la voulons yaakaar naa ne loolu mooy suñu combat au-delà de l'amélioration des conditions de travail au-delà de l'amélioration de nos niveaux de traitement salarial Au-delà du respect qu'ils doivent aux travailleurs, le combat c'est respecter le Sénégalais respecter la les consommateurs sénégalais wax leen dëgg wax leen ne facture yi nga xam ne ni ñaa ngi koy jooy mu cher nan la demee lan moo ko andi non n'ont pas l'expliquer personne ne peut l'expliquer donc yaakaar naa ne loolu mooy suñu combat et combat bi dinañ ko mener avec tous les autres segments de la société les consommateurs, la société civile, camarades d'Expresso, camarades de, de Dakar Demdik, camarades des AIBD, camarades de Orange même, Orange. Les camarades Orange sont sur le terrain de la lutte. Les camarades des autoroutes, que ce soit l'autoroute de ou l'autoroute Ila Touba, ces camarades-là sont dans la précarité comme nous, travailleurs avec nos 400 à 500 stagiaires. Le combat, la jonction de cette lutte, nous appelons tout le monde à la marche du vendredi. Cette marche scellera la jonction des travailleurs en lutte dans notre pays. Nous lançons un appel à tout le monde. Nous lançons l'appel à la société civile pour que ce combat-là, nous le gagnions.